140 nga bismillah mu ne jibu dana war bi sunnati ci sunna war sunna jibu tedd saa un saa mooy war saa mooy lan lu mu toll saa ñeenti nit aw gis uhu wala xaajam anhu dana war anhu walis ko moom muy saa soosu nag fadala loo xam ne des na an xuuti yi ci dundam bu mu seetee li mu war a dunde la des wa xuutu iyaali yi ak dundu njabootam moom ak njabootam li ñu war a dunde mu seet ko ci weer wi wa in bi ci sallufin donte daf koy lebit ñu lebal ko ko mooy muurum koor war gu saxla ci sunna maanaam xadis moo ko saxal ne saa war na te mooy ñeenti mudd yooyu walla xaaji saa bu fekkente ne mënul saa amu ko def na li ko war lépp amu ko moom mu génneel ko boppam na fekk nag am googu mu am dafa des maanaam aajuwu ko ci dund ak dund ñu dundal ay njabootam nga xam ne kon mën na ko génne te du tee mu dund ñooñu dund ñu ne am duñ ko am ndax daf koo am denc ko ñu ne bal wa in bitti sallufin donte xam na ne bu lebee diw mu lebal ko itam dana ko leb génne ko fekk yaakaar na ne dana ko mën a fay te du koy yàqal du manqué dundam ak dundu njabootam mu ñu waxal yàlla ndax asakay koor asakay dog te mooy muuru koor bi awali laylatil iid day war ci njaal beenu guddik iid booba la te mooy bu jant bi sooyee ndax booba la dal di war ba nga xam ne kon nit ki bu biir setee mu faatu te génnewu ko woon dana am bàkkaar wala moom kay du war ci njaal beenu guddik iid suba si lay war te kon nit ki bu faatoo ci suba si fekk génnewu ko woon du am bàkkaar ndax warul woon wala déet aw bu fajri yi wala moom kay ci fajar ji lay tàmbalee war xilaafun am na ci wute bu koy génn nag min axlabil xuuti ci la not ci dund réew ma fa mu nekk la fa gën a bari ci lu ñuy dunde lu ngeen xalaat foofu waaw waaw dugub baax na waaye ma ne fii ñaare ceeb lañ fi faral di añe est-ce que léegi buñ demee ba gannaaw njaañ fekk itam ceeb lañu moo ko nag wala parce que réew mi la ñuy seetaan loolu moo tax ñaar yëpp baax ceeb danga gën ndax moo gën a cher gën a ndax bu nu seetee xëy na Louga Dakar Kaolack Thiès Ndar dëkk yooyu mën na am ceeb not fa waaye mën na am dëkk yoo xam ne xam nga bu jub bu dugub jafee léegi am jamono yoo xam ne dugub mooy not. ah ceeba fa ne kon nag léegi ceeba war dugub la ñuy reere cere la ñuy reere cere de moom waaw moo tax ma ne ñaar yi daal baax na
bu dee añ moom ceeb ci kaw fenn jëm ci bëccëg bi la ceeb moom daanaka nag gis.
ah ceeb bi la gën a not de. moo gën daal xam naa ne daal.
moo gën ñëw liggéey.
mun moo assuré lu tukkee ci lu ñu fukkal foofu nag histoire yu bare ngi fi. waaw waaw mën nañ ko. mun moo assuré ci lu ñu fukkal foofu nag indi na ay problème yu bari am na ñoo xam ne. def nañu ba duñu asakaal gerte ndax limaali wuñ ko ci fukki yi te asakaal gerte de yaakaar naa ne moo gën a not ndax fukki yi xëy na bi ñu koy wax it dañoo jamono booba dañoo limoon charte bi moo di lu ñu mën a dundee te mën koo denc te du yàqu jamono booba bu ñu seetee loolu fukk rek lañ ci xamoon fukki xeeti ñam waaye gerte ndax mën nañ koo dundee mën nañ koo dundee te du yàqu mën nañ koo denc du yàqu kon nag asaka daf ci dal di war am na nag ba léegi fii ci Sénégal ñoo xam ne du ñu asakaal seen kër ndax ne ñuy tudd ñu ko ci fukki yi waaye fukki yi moom booba ñooña fokk xaw yi yooyu lañ xamoon rek waaye bu ñu demee yeneen réew ñu dundalee leen itam rek daf cay dal di war min mu assurin ci lu ñu fukkal mu ne loo xam ne lii bu amee fukkam ci lañ koy génnee wala ñu fool muraadu bihi huna xusuusul qamxi wa shaciir wa sulti wa dura wa urd wa dox wa tamr wa zabib waaye am na bu amee yeneen ñam ñu fay ñu xam mu rempli condition yi yi ñu rempli itam asaka daf cee dal di war te kon dañ cee mën a génne itam buur koor aw aqitin wala fromage mu xayri alasin mu ne kenn du ko génne ci alas ko day wala mooy bu dàqoo ñu ci def xaw alas kat bu sew ruuj la woy koy lu mel ne lu wala fi wax xam nga xardal li ñu koy firee ci bàkket la ñuy wax espèce su ñax la boo xam ne dana am dugub dugub ju du woyof ju sew ruuj xaw weex parce que daanaka dund bu ñàkk solo la daal pour lekk ko daal lu ama kiiwul daal xam ngeen foño foño bu gën a kii foño mën nañ ko dunde dafa leen dugg dugg ci daanaka moom moom moo war nañ te ñu yëpp xamuñu ko ba niñ ko ci nit ñi ndax naat moom bañ a génneel mu waaw baax na de dégg nga ibnu abid moom pour moom alasag yëpp mën nañ cee génne moom koor dafa woyof nag ba ñàkk solo ba nga xam ne xëy na gannaaw dañu bëgg muur koor mi nga génne ko suba teel ndax ki ñàkk nga xam ne ci la aj li muy lekk mu fegal ko ay soucis ba mu mën a dem julli ji mën a sol yëreem mën a kii ndax bu xëyee nga yéex koo jox fekk ci loolu la konte woon pour muy ittewoo julli geeg solo ak sa ngoog ci yëpp lii daf koy dal di gën a war day dal di wuti lu mu lekk balay li ñu mën na am sax mu bañ a julli ji wala yooyu loolu tax ñu bëgg teele ko mu nekk illaa an yuq taata ndaree nga xam ne boobu dañuy dunde xayrahu leneen lu dul moom lu dul maanaam li ñu wax yi ñu wax fukk yooyu fekkee ne dañuy dunde yeneen kon yooyu mën nañ caa génne asaka bu ko defee bu dee alas it kon mën nañ ko caa génne laa nekk taata xayrahu wa an kulli muslimin day war it wëlis bépp bopp jullit bu nekk war nañ la koo génnee muslimin bépp jullit boo xam ne yamunuhu dana njaboote ko maanaam dana yem mu unaam coonoom muy sonne mooy koo xam ne ki yow yaa amee dund ma gi yëppam daal bi xarabatin ci jegeñaale aw zawjiyatin wala mariage mu ne wa in li abin donte ci côté bàyyi la woon itam waaw dégg nga aw raqin moo ci tegu la
waxaat bi ñu xaar ah waaw kañ mu ni ak mbindaanu jabaram jabaram xaadim xaar aw raqin wala jaamam wala mu kaatabat donte jaam bi ñuy jotool lay nga xam ne waxtu wu matale libre wa abaqan ak jaam bi daw it da nga ko génnee waaye rujiya kon yaakaareef na ne daañu ko jàpp mafhum wa ma biyaan ak bi ñuy jaay bi mu waadaatin ci tëralante mooy tëralante mooy jaam bi jigéen la nekk xamuñu ëmb na wala déet ñu di ko jaay kooku daf koy seet ba xam jënd na koo pare waaye ab ku ci charte loolu ñu di ko seet nag ba xam loolu am na ko wala amu ko diggante boobu daañ ko génneel asaka ki koy jaay ki ko jaay ndaxte bu fekkee ne kee daf ko sartoon ni si umbul bu bi daf koy war a delloosi njaay mi day fii kon ku dopp kon ba tey génnagul moomeelam wóoragul na génn moomeelam dana ko génneel muru ko aw xiyaarin wala jaam bu ñu jaay ci tànn mooy da nga dama lay jaay ci xiyaar ma jaay la lii waaye yaa ngi koy soog a xamuloo am na ayib ci biir wala déet nga di xayaar feeg semaine wala feeg ñetti fan ba xam da nga si gis ayib wala déet boo gisee ayib nga bàyyi boo ko suñ ko jënd kooku ba tey bu mel ne jaragul daañu ko génneel ak bu muxtaman ak ku ñuy liggéeyloo wax ku ñuy liggéey ku ñuy liggéeyal maanaam euh, ku ñu moom di am boo xam ne eh, dañ ko dañoo maye liggéeyam service am nga may jiw mu lay liggéey mu koy liggéeyal dañ ko féetale kooku mu koy liggéeyal daal waaye yow yaa ko moom yow da nga ko war a génneel asaka mu ni illaa ñu leen bind dafa am lu naan Hmm? illaa li furuuji waaw mun ngir jëm ci ngor nga xam ne daf koy liggéeyal ba nangam mat mu moom bopp mu libre nga xam ne yow génn na sa loxo léegi moomatoo liggéeyam te bu paree ci liggéeyal kee moo xam ñaata fan la wala ñaata diir la day day gore kon boobu jox ko génn la maanaam asaka waru la mu ne ngi génn ko waaye waru la kooku mu ne na kon ku mu war fa ala muxdame yi ka muy liggéeyal moo koy kële moo koy génne asaka wal mustaraku ak jaam bu ñu bokk dañu associé dañoo as- associé jënd ko ñu jënd ko kenn ku ne am ci wàll moo xam kii def moom sulusaan yi kii moom sulus wala kii lu rubu wala ku ci nekk nisfu nga am kenn ku ci nekk dañ koy génn asaka wal mu mu baaxagu ak ku ñu lennal maanaam jaam bu ñu goreel lennam mu dese lenn lenn ci am lenn di wax maanaam mu libre bi côté ñaar ñu bokk kenn ki goreel wala mu baaxagu la bu ko defee kooku itam ki moom li ci des dana ko goreel te xadal milki ca kanam ca moom indi mu libre mu génneel ko boppam ku ba jaam jaam wala chey ak déet lëf nag alal ab di di war jaam ki ñu moom dëgg léppam moom dara waru ko maanaam warul génneel bu commencé ko kii muur koor ak wala wala mustara ak bu ñu jënd faasi dan mbir mu di aji yàqu njaay mu yàqu la dañu ko seet nañ kii kat buñ ko koy jaay ji di nodd jumaa te dañu war a firi jaay mi kon jarul jaayuñu ko ki ko moomoon mooy génne ñu koy génneel muur koor dégg nga bu fekkee ne faasi dan dafa yàqu ala mustari yi nag ki ko jënd dégg nga ki nga xam ne kon moo ko jënd moom la moom ala mustarihi waral aji jëndam bu fekkee ne nëb na ko fekkee ne duggagul loxoom nag du ko war kon ki ko jaayoon bu waxante yow xam nga ko xam nga jax ba pare xam nga ni mu demee léppam ñu waxante nekku fi ma ne la dama ko yónni dëkk sàngam waaye dina ñëw ñu jëndante ko léegi xam nga nga bëgg moom man bëggul sama loxo léegi ñuy wari ñu war ko génneel asaka comme duggagul sama loxo yow mi ko jaay yaa koy war a asaka fekkoon nag duggoon na sama loxo nag man maa koy asaka mustari léegi nag ñu seet njaay mi ñu dafa yàqu wanu li ba soppi xot na ixraaju génne ha asaka asaka yi dog baadal fajri bu fajar fekk rek sopp nañu daal di koy génne xabla salaati te la jëkk julli ga mooy comme li ma waxoon rek léegi war def koy génne min xóot yi ci dundam laxsani bi di aji gën a rafet te mooy li mu waxoon ne kon bu dee dugub ak ceeb ceeb a dugg wa war na xarbalat lu xam xi bees blé bala nga koy génne bala nga koy natt nga kii ko ba mu nga lay ko daal ba mu set ba nga xam ne poussière bi ci ànd ak yooyu nga soog koy joxe asaka illal xaalis la du dul ay cuut cuut xam nga cuq du cuq xam nga cuq bu ko la cuut waaw kay day sew ruuj mën na jam sax bu dee mbool mën na jam nit ki des ci kooku day naqaree dindi soxla nga dindi ko wa daf waxaa ak jañam maanaam nga joxe ko li zawali faqrin ngir dañu ñàkk jiw sàng nga jox ko ko dafa amul dara diw ngi mën na lekk mën na lekk asaka muur koor diw mën na ko fekk asaka kii amul dara ba di ko jox pour ñàkkam dañ ci bis bi li toog ni xorran musliman fi yow mi waraqin
maanaam damay gis ñu ko jox ñoo xam ne màggat yoo xam ne ñu naan dara waru leen dara waru leen daal gannaaw dañ leen ameel dund rek moom waruñu leen ko jox ki nga xam ne nag moom moo moo koy dundal nga xam ne dund bi moom la war moom maanaam soxnaam mën na ko jox borom kër waaye mu fay ko ay borom wala mu mu lijjante ko yeneen waaye bu mu ko boole ci dépense bi ki nga xam ne nag dañ ko koo ameel moom dañ ko ameel dund ak yëpp moom ki ko ameel dund moo ko war a génneel bu fekkee nag amul ku ko génneel te amul maanaam jox gi sax ngay wax ki ñu koy ñi ñu koy jox. ñi ñu koy jox ñoom ñu aajowoo rek euh, fukk yooyu di lim fukk la wala juróom-ñett sax dina ma sadaqaat lil fuqaraa wal masaakiin juróom-ñett juróom-ñett juróom rek yi lim moom la ñuy jox asaka asaka yi doog itam maanaam muuru koor moo ko asaka bu ci la dégg ngeen noonu la de dégg ngeen de waraqin wala dañu njaam masalan pour dañ ko ci jot comme ni ñu waxoon ci asaka yi rek boo fi raqabi dégg nga waaw idi bisu idi kii be kii dañ ci yow ma xub walil imaam wa daañ ko jëñ jox lil imaam yi ñeel ilimaan ji al adli ji di aji maandu ko defee moom mu def ko tafriq wa adamu ziyaadatin sopp nañu ba tey ñàkk a dolli ci tey maanaam ñàkk a dolli li nga xam ne moo war saa bi nga nattale ba mu wóor ne lii doy na ba noppi nga di ci dolliwaat nga yokk di ci dolliwaat ñu nga kooku ba tey bëgguñu ko weexaaju musaafiri ak génne ko xam nga moom sopp nañu musaafir mu génne ko rek waaye bu ko neexee mu nekk ba dellu dégg wa jaasa dagat na moo xam ñu génn ñu génne ko boppam wala ñu génne ko ko bu ci nekk rek ñu nga dañ ko sopp ci jamono ji nga xamee ne mu ngi ci tukki bi ndax bu fekkee ne am na ku ko war a génne itam gannaaw nekku fi mën na koo fàtte moom sopp nañ kon moom mu génne ko foofu mu nekk ni ñu umra bi mel ne umra bi ñu daan def dañ daawoon génne asaka ji foofa ca Madina joxe ko buñ dikkee fekk xëy na bu fekkee ne prévoir woon nañ prévoir ñu woon ba natt ko bàyyi fi ndax booba waru bu ñuy génnee sa gannaaw mën nañ la fàtte wala ñu fàtte kenn ci ñi nga war a génneel ñi nga xam ne yow da nga leen daan daa war a génne sopp nañ daal bu ko neexee mën nekk ba dellu si ndax moom fii ba fi at mi yëpp sopp nañ nag nga joxe ko suba teel waaye fii ba at mi dikk boo ko fi génnee itam baax na mu ni ñu war a génne ndax mën naa mën fa
bi naan moom da nga koy liggéeyoo di ko fay rek kooku moo war a génneel boppam bu la neexee nag nga génneel ko rek yow ci sa kii bopp sàkku tuyaaba waaye waru la wajaata dagan na itam ixraaju ahlihi yi génneel ko ab ñoñam an ko walis ko moom mi aji tukki ji waa këram ñu natt génneel ko wa dafu saa in dagan na it joxe benn saa li masaakiina ñeel ay kii yu bari ay miskin yu bari nga bañ a jox benn miskin bu ne saa yu dul saa bi benn saa ak yi nga jox ko ñaari miskin wala ñett wa asoin ak ay saa nga jox ko li waaye di ñeel kenn nangami saa nga jox ko kenn boobu de moom dañ koy critiqué ba mu ñaq asoin ñu noonu mu jam wa saa ñu wa asoin lam yaati fi sixaaxi wala muy wala mu yerit fil kutubi sixaaxi ila axiri waaye nag kenn mosula dégg ñu ko afolu jam wa xilla la wante saa moom si aanun mooy xiyaasam li waaxit wa min quuti yi tukkee ci dundam bi alladwani dana dagan bokkul ak lañ soppoon nañ ko waxee waaye dana dagan mu génne ko ci xo- dundam alladwani bu dee aji gën a suufe bu dee aji gën a woyof ñu ngi tey muy dundi ceeb ak dugub mu génne ko ci dugub ci ceeb ñu ñu ne ko faw bu ne ah illaa li suxi ndara ngir nay bu fekkee nay rek tax mu di ko def nag du baax du dagan wa ixraajuhu mu ne ba tey dagan na génneem xablahu ci la jiitu war war gi mu te mooy bis bi bi kal bi kal yow mi wala ci guddi gi njaal benn guddi gi ci yenati wax ñu ne bu jant sooy war na ñu ne bu subaa lay war dana dagan nga génne ko ñaari fan bu nga xam ne korite gi des na ñaari fan
waaw bari nay coow de léegi comme comme maanaam dañuy bari toujours ay wute ci affaire weer ak yooyu waaw ndax bu gën ñu koy ñu koy jiital noonu ndax
xamuloo kañ la kii waaw bu gisu waaye yow ci sa ñaar fukk ak juróom-ñett rek ngay natt bu fekkente ne euh, woor nañu ñaar fukk ak juróom-ñeent moo gën a ti waaw ndax moom yéexe gi mu gën a jege bis bi moo gën bu fekkee ne woor nañ ñaari fan yi nga xam ne ba tey ñaari fan yi génn lu ko jiital du du wàññi dara dagan na ñu ci nekk rek dañuy jàpp ba ñu amoon rek ñoom mu ni waaye jaam yàlla ndax niñ koy jiitale ci lu mat ñaari bi mu dagan ndax mutlaqan mbir mu lu ñu boyal la masalan kenn tënk tënku ko ci yóbbu ko jox ko ilimaan di koy teqale rek la waaye dal di koy fab génne ko pour teqale moom mu jiitu ñaari bés dootu dagan mu ni taw yi daan am na ñaari jantal mu ni walaat parce que du rot mooy li ma waxoon sànq parce que muuru koor bi mu gën sama ni xaay ci wéyu jamonoom daaw génne woon muuru koor ba tey war na la génnee ko de waaye ni maa ko defoon tudd faw naka def na jox muuru koor li xorri ñeel gor muslimin ku di jullit faqir ci aji ñàkk